Mohamed lan la. damay nax sa rakk day jooy. jununu jun jununu jun jununu koro koro ko jogo ñolo ko jogo jogo ño ko ñu ngolo ko ñu ngolo ko ñu ngolo ko waa lan la damay nax sa doo sa rakk lan la ah la la mia moglie casa sa casa laay nax damay bañ mu jooy kucugula ka cugulu tukocugulu kucugula kaa sugu ñungula tukuñungula kaa sugu ñungula tukuñungula kaa sugu jabraba jabraba ñungula kaa sugu ñaakulu ñaakulu kulu ñaakulu kulu ñaakulu kulu ñaakulu kulu ñaakulu ñaakulu ñaakulu kiri kiti wiri ñu jota waa lan la damay nax sa rakk lan la yow ba ci tollee nii laa la doon def kañ ah